mbir mi nga xamne nak nag nay xew fële sa bakkel mu nek nak coow loo xam ne si patriote yi daan nañuy genn def ci ay réaction yu xamne nak nay nek ay réaction yu am solo ana ban taxaway la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye war a taxawee tamit mom mi nga xam ne téewoon nañ ko japp ko ne ko doo dugg fële sa Bakel te président Bassirou Diomaye Diakhar fay nek fa est-ce que warul mën jur li nga xam nak modi xëccio politique ba tax nak ñu daal di koy té bu doon keneen la mën nañ ko bayyi mu dugg waye nak comme président basiru Diomaye Diakhar fay mo ngi fa kon mom Bougane ngay dani nekul lo xamne da daal lu yoon lay doon mu daal di dugg fa nga xamne rek fa la Bassirou Diomaye Diakhar fay nek nek président ñu anu japp ko ne nak li muy def moom bu ko yemale won si premier ministre Ousmane Sonko man nañ ko xawat a touti mais nak bu ko bëggee yóbbu nak jëmele ko ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kenn du ko ko may ñu bayil nak ak vidéo bi ngeen tewlu réaction yi nga xam patriote yi daan nañ ko ci amal yaa ngeen jëf. je peux accepter sax. Bougane dox dox rom yi mu yemalee ko ci Sonko. mais Diomaye c'est un président. Diomaye c'est un président. ba pare dem ci genre secours ci loo xam ne catastrophe naturel la. ànd ak armée bi. sol tenue militaire ànd ak armée bi. mais waa ji il n'a rien compris il n'a rien compris. Bougane su bëggee de mën naa bàyyi ba président dellu si. après moom mu dem mais pour le moment su fa dugaan buggaan duggee pëccëxoo politique bu fa amee est que sécurité président dana mat doon dafa am yoo ne du xalaat bu rafet buggaan kay su ko neexee mën naa dem mais comme président dem na fa démb tey dafa war a bisi léegi buggaan na jàpp boo xam ne président nekk fa après mu dem mais du fa dem fekk fa président ngi pëccëxoo pëccëxoo buggaan mooy kat wala buggaan moom lu mu xalaat wala lu ko neexee da ko war def ci réew mi ah way am jàppee leen ay xare gi dee gi bukan lo leen jàppee xam na amul amuloon xel xel zéro mu jàpp leen xoolal manipuler leen teg lañ ci telam boobu suba ba ngoon bu ngeen xëyee di raconter de contre-vérité ba jant bi sox ça change quoi ba ngeen ko dalee wax ba léegi est-ce que empêché na askan wi di def li ñuy def hmm? aw askan bu décidé dañ koy respecté même boo ci d'accord mën nga critiquer mais mënoo taxaw di traiter le peuple et immature ñuy wax nga naan leen peuple bi voté Ousmane Sonko sax Oh, ñooñu say morom yaay ñi ngi ci say morom papa ñi ngi ci bo amoon yar ak teggin du ni ngay waxe ak ñam mais ñak yar ñak xam dara ngeen togan gaañ li Alpha blonde di wax le chien aboie le caravane passe bi ngeen commencé aboyer ba légui le caravane passe toujours sos bu ne sos ngeen ko fi yeen ak seen leader nar wu ne nar ngeen ko fi li ngeen nar bu ngeen ko peser won c'est des tonnes hmm? vous êtes en train d'aboyer le caravane passera toujours su ngeen demee ba amatu leen pexe ngeen taxaw di jël mais peuple boobu c'est des millions ñoo voté Ousmane Sonko say morom yaay mu ngi ci impôt de respect say morom bu papa ñu ngi ci impôt de respect hmm? mais nekk ci groupe WhatsApp yi nga toog soi-disant chroniqueur xamu leen dara dara dara dara xamu leen ko yor ay bopp yu rëy rek ak seen i ñuulaay toog ci plateau télévision yi suba ba ngoon di nar ça change quoi parce que empêché na Ousmane ak Diomaye fay da accéder au pouvoir mun leen convaincre ken Ousmane Sonko mom fexe na ba convaincre sénégalais yi mën convaincre li ëpp ci sénégalais yi ñu fal candidat am ah yeen bu ngeen amé lu leen metti dem leen gën laaj ko yalla dem leen gën clamé ko yalla mais ngeen respecté tuuti peuple bi quoi MP de respect gën bàyyi seen jikko xar ak bay yi gën yor. dem leen gën def édition spéciale sen télé daf bobu tal leen ko ngi dem regroupe fo yeen ñep ngi wo ko len saf bu buggoon réewante képp kep moko japp jeune militaire bo xamne loi bi def ne civil amu fa droit dem jeune militaire buñu déclencher ay nit nek ci mbënd mu yagar yagare gàttaayam beeg di ko sax baara wax rek mu melni ku jógee cœur brisé kan yabaate bëgg bës bës ba xam nga fu mu nek bës ba nga dégg nga Dakar arena waaw nar ngeen sonu affaire ay sos du ko faj ay nar du ko faj ay manipuler du ko affaire yi gis deug nangu ko la dem liggéey comme nit ki bugaan na dem liggéey daf ni Ousmane Sonko num mu yee la mayo mais tok fi di Sonko Sonko lo di graw graw lu dañ koy japp fi xolal ñaf ko ci kasso bi te du mujj fenn su enfreiner la loi la wax loi bi na dal ci ko dor ko ci mbam mi te du mën ci dara da ngeen dem togar sen TV def édition espoir raconter n'importe contre que vérité parce que li ma la ko wax ay bataille communicateur ngeen amul leen métier loola leen jëlee ngir ngeen di sos mu leen di fay waaw comme nag yéen amu leen ak yaras hmm? xalaatu leen seen avenir amu leen métier nangu ngeen nekk ay bataille ay bataille communicateur ak raconter de contre vérité dem leen dem leen mu jàppee leen ay bataille rek am na fu la de waaw mais lu ngeen di wax ba convaincre fii nit ci seen tappale yi. lolou gisso ko parce que mun leen convaincre ken sen waa tam sax mun convaincre la na ne su ngeen di wax sen jabar rek sen tammi yi len ñu leen seetaanee ah ñu ngi wax ci sen xel yi ne ñi mo yalla ma yalla bal mais li ñi wax dara du ci dëkk lolou mo gën nek gatch hmm stay nek len ay nit wa ah, am ngeen kan ci droit nak mais peuple sénégalais bi bu ngeen di wax ak ñoom respecté len leen xam kan nga nak man mom dafa am lo xamanteni ne limay wax gaay duma ci sori parce que déglu na président Sonko mu ne état bu Sénégal génn na huit milliards pour dimbalee ko ñooñ nga xam ne ñu ngi ci coor gis naa président Bassirou Diomaye fay ànd ak armée bi dem fa gis naa ministre bi nga xamante ne bii euh, moo yore wàllu euh, développement social yaakaar naa lañ koy wax joxe fa ay ceeb ak ay diw léegi nag kon man damay jàpp ne état ña nga ca te man bokk naa ci njëkk a sàkku ne état lépp luñ mën ak luñ mënut nañ ko génne comme ay moyen comme ay moyen dem dimbale ci ñooña légui nak suñ wëlbati ko am information yi ñun kon dañ naan alhamdullilah état ma nga fa benen bi gi def nak moy eh, ñu jang ci alquran xad jallallahu li kulli shay'in xadra dafa am lo xamanteni ni moom dogalu yàlla la bokku na ci dogal yalla yi lee di génn nga xamni mi ngi génnee ci def gi suma juumul di def ci suusa la ko sopp ci coobare yalla légui nak yiñ sukkandiku ci liñ jokk ci ay information ni état ma nga def motax ñu xamni état seetaalu leen ma nga ca mu dess nak comme ñun patriote li nga xamne ne moom lay lay lool mom ñun dañ ci dañ ko baxo moy lan sa bu election di jup la nga xamne mom lañ wara campagne bëgguñ ma sàmba jox ñuko bëgguñ ma demba jox ñuko ci suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm lañ lay lay dem defe ko comme nak dañ ko yagg di def waye su election di jup kay tombé ak dogal bu yalla ñu def lañ daan def lool dara neeku ci lool dara neeku problème bi nak moy gis nga Sénégal mom kay ma xamal la ben affaire man lima gëm moy sénégalais bu ci nekk da nga bëgg Sénégal bëgg Sénégal baax man mom loolu laa gëm personnellement rawatina nag ñi nga xam ne dénk nañ dënk guñ leen àllu réew mi ñooñu ñëpp damaa gëm ne Sénégal baax lañ bëgg Sénégal baax ñi ma mën ñi ma mën a ñi ma mënta nangu nag ne bëgg nañ Sénégal mooy ñi nga xam ne mos nañoo laaj bañ dénk leen wala nit laaj na ñu dénk ko mu dénk ñoom ñu wëlbati ku def ci lañ leen dénk nag suñ noonu ñooñu moom bu ñëmaa dañuy bëgg Sénégal mu waaye l'essentiel que mooy li wérti wóor mooy man Pastef li may wax rek xam naa ci ñoo xam ne bu fekkoonte ne du bëgg Sénégal bu fekkoon du yërëm Sénégal yi sax wax ci politique loolu man xam naa ko ci ñu bëree bëri xam naa leen ci waaw yàlla yàlla boole ñu ci ñooñu ñun moom politique bi li ñu ciy wax lépp yàlla nekk njariñu Sénégal li ñu ciy wax lépp yàlla nekk njariñu Sénégal yi bu fekkee suñu njariñal bopp kese moo tax ñu ciy wax yàlla ko am barki yonent yàlla ko ci population bi bu dee suñu jëmi bopp yi rek mën nañu ko ñàkk defal parce que xaaruñu ñoom tous man muy Ousmane Sonko muy keneen ku Ousmane Sonko jëm benn politicien bu may xaar ci sama dund gii pour nga ñëw defal ma dara mu amu ci sëriñ bi ñu ngi lay fay nuyoo baax di la ziara di la màggal la jox sa wàccu waay non du ñu sonal ah man boog man du ma bokk ci ñi bugaan di sonal xam naa ne man moom su fekkoon président de la république nekku fa ñu man maa waxal ne dañuy garder sécurité moo tax duñ bàyyi policiers yi dem fa ñuy pëccëxoo dama naan nañ ko te gëm naa ne ku téye itam ci de yi bu fi demee mu pëccëxoo sécurité président république loolu moom waaye tey jii soo bëggee dem moom xam ne sax du sotti te du sotti wallaahi laasim te bu fekkoon mooy bugaan bugaan mooy président la wax de bépp politicien bu ko fi bëgg fekk ñu téere man dama ciy ànd parce que nag président du nekk ci benn mbir ñu bàyyi politicien yi dem foog ñuy pëcc xoo loolu du sécurité déedéet loolu kenn waru ci ànd ak bugaan